mbër na lay nit. waaw delloo si àrgaar Maodo. yaa si sant yàlla bu wér. après neex na de. waaw waaw waaw ndam moom neex na trop. ndam dafa neex. démb damaa dem Colobane commerçant yi ndeysaan mooy loolu quoi xam ma man maa mbëri commerçant yi. waa Mbete seen Sandaga Colobane yëpp maa seen mbër loolu la yàlla dogal. li nga si loo nekk. sant yàlla rek. naa ngay tudd Coly Faye de. waaw mais lamb la xam nga tey su ma nekkee sax di nga laaj dama koy may bës mais lamb moo ñu boole ëpp ma ay xam nga ëpp ma ëpp ma coow lam kon dañoo war a bëre man moom yaa may dégg jékkool bu Fatick nañoo ñu bëre Mor Dia Pam Ndoy man samay morom laa bëgg a bëral ay këwal yaa may dégg wala gàmmu gay Pam Ndoy gàmmu gay Tapha Mbeur ku ci daan soxla naa waaw làmb coow laa bëgg làmb dër bi xam naa ñooñu ku ma jàpp dama lay daan bilaay walaay loo gisee sa sa combat doomu ndey ñaamu ndaw waaw bilaay di ko ñaanal jàmm nag maa moom ñoo andi préparé combat bi yëpp wóor na alxuraanu garab ñoo ànd ba mu jigee Gàmbi ba léegi ñooy ànd maak moom di ko ñaanal yàlla na ko yàlla liggéey la loo xamante ni wax dëgg yàlla manoom man maanaam sama xel dal na ci moom quoi bilaa voilà di ko ñaan ndam lu seddu guy ci kaw armée bu ngëwal waaw am ngeen combat bi dina gaaw naa mu gaaw nag am naa si yaakaar baax ndax ñaar li mu liggéey la quoi waaw ñoo faree Modou amal jàmm